dalin ak jàmm ci xibaar yu gën a fës ci bis bi ñu dooree ko rek ak mbir mi nga xamante ni ñu ngi koy ci foofee ca ndakaaru rawatina ca clinique bu ñu naan këru mag foofu nag benn xale bu góor bu toll ci fukki ak juróom di wéegi turu àggi moom nag la ñu daal di jàpp ngir wàllum escroquerie moom saa itam bokkoon ci nga xamante ni ñoom ñooy saytu kaaraange ca këru fajukaay boobee nga xamante ni ay mag lañ fa daan téye téewum néegu niku ngir faj leen moom nag li mu def rek moom moo di daal di dugg ci ab benn néeg bu nga xamante ni benn mag bu am am daanaka lopp juróom-ñaar fukki at bu yokki El Hadji M Ndiaye kookee nag sax la xale bu góor bi daal jël téléphone am daal di ci génne neuf cent mille francs bi nga xamante ni daal benn moyen transfert d'argent da cee nekkoon neuf cent mille yooyu sax itam daal di andi jeexi jaax ba waral sax moom paa bi di woon porte plainte ba ñuy jàppee ka nga xamante ni moom moo di xale bu góor boobee ne enquête yi sax itam wane na xale bu góor gi moom moo ko daal def waaye ne nag ni mu ko defee moom moo di comme que paa boobu daf ko wóoloon ba jox ko li nga xamante ni moom moo téléphone maanaam mu koy doxal yenn course yi ci la daal di nag suutiree li nga xamante ni moom moo di eh, kontam daal di ki jël neuf cent mille francs leen nag moo ko taxoon jóg moom moo di fexe daal ba financer li nga xamante ni moom moo di voyage am Maroc alxamis bi nag lañ ko doon atte foofee ne tribunal bu grande instance moom xale bu góor bi nag daan ne nangul la nga xamante ni loolee lañ koy toppee waaye tam sax nee na nag leen di ko taxoon di def loole moom moo daal bëgg a dimbali ña nga ni ñoom ñoo di ay famille mbir mi nag sax procureur daal di jàpp ni nag daal mbir mi dañ ko war a daal di corriger moom nag sax dafa daal di trahir ki nga xamante di pa boobee ne tam sax li tax itam mu gën a feeñ moom moo di ay caméra de surveillance procureur nag sàkku rek moom xale bu góor bi ñu teg ko euh, fukk euh, maanaam juróom benn weeru kaso yu nga xamante ni def ko daal tëdd waaye nag moom mi nga xam ni sax moom moo di xale bi ña nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak mag boobee daal li ñu bëgg rek moom moo di ñu daal leen di rembourser xaalis boobee ne waaye li ci mënti am daal mbir mi daañu ko joxe verdict bi daañu ko délibéré le 24 novembre bi ñu jëm waaye nag moom xale bi daanaka jamono bii mi ngi ci kaso ba di xaar ana bandogal ndogal la yoon di del ci moom ñu wax itam beneen jiyee bu nga xamante ni am na foofee ne ca diwaanu Ndakaaru rawatina te Parcelles Assainies benn mason daal moom itam dañ ko daal di jàpp euh, placé ko en garde à vue li ko war nag moom moo di ab xaj bu nga xamante ni daal xaj bulldog la moom la daal di jël bëgg koo tiitalee benn xale ba mbir mi itam naroon jur li nga xamante ni moom moo di ab jéyee ndax xale bi sax nee nañu ci ab camion la daal di daal di làqatu xaj bi itam sax dem ba daal di koy songu gendarmerie saa itam moom moo daal di mujjee ñëw intervenir waa brigade de recherche bu police bu Parcelles Assainies daal ñoom ñoo daal di ñëw gannaaw patrouille bu nga xamante ni nag ñoom ñoo ko doon def ñoom ñoo daal di assister mbir moomee ne wala saa itam moom maçon bi daal nañ ko téye placé ko en garde à vue li tax nag mu def ko ba tey jii nii kenn mënu koo xam daal waaye mbir mi daal dinay àgg ca kanamu yoon démb ci alxamis bi tam ak accident daal di am foofee ne ke sangal kaam li ko war a nag moom moo di ab benn commerçante bu nga xamante ni mu ngi wékki turu see jàllo moo doon dawat ab otom daal daal di faat bakkan moom soxna soosi sax ne daal dafa mel ni ku nga xamante ni dafa doon jàng dawal ndax nag ay doomam la doon yóbbu mu jàngi ni mu bëggee def masse arrière nag ci la daal di mbëkkee nga xamante rek moom moo bu Sangalkam loolu sax itam moo waral nag miir bi daal di daanu waaye itam daal di faat benn soxna su nga xamante ni mi ngi woon ca beneen wet ga soxna soosi sax dafa daal di faatu ci saa si waral sax ñu daal jël ab néewam yóbbu ko eh, ca morgue bu l'hôpital moom soxna si mi nga xamante sax moom moo di def mbir moomee eh, jamono bi daal dinañ koy koy jàpp ngir ibi ab lanket xool ana dëgg-dëgg lan moo waral mbir mi ca Bakel nag ba tey ji rek la nga xamante ni moom moo di fleuve bi mu ngi sotti ndoxam daal di tax nag ba foofee tax daanaka kéematul dem kéematul dikk ndax ndox mu bëree bëri waaye itam saa beneen jéey daal na ci yam ndax xale bu toll ci juróom-ñaari at moom moo daal di ñàkk bakkanam foofee ne ca Kidira moom nag saa itam xale bi bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi nekk ci RFM daal xale bi dafa daal di lab ci ndox mi waaye nag lu ci mënti am sax ba tey jii nag moom xale bi kenn mënagu koo jibbal boromam ndax foofee daal nekk na bërëb bu nga xamante ni ndox mi daal ne nangu espace yëpp ba sax bërëb yi nga xamante ni fa la ñu doon denc denc seen ay néew waaye itam sax beneen bi itam di courant itam mënu fa am ba tax saa itam ba mënatuñu faa denc ni dafa daal di génn àdduna mu nekk nag njàkkare tiis bu nga xamante ni jamono bi askan wa nekk foofee ne ca diwaanu Bakel ñu ngi tàllal loxo nguur gi ñu mën leen dimbali ay jur yu dee ci biir ndox ay nit ñu nga xamante ni seen bërëbu liggéeyukaay daanaka lépp yàqu na waral ko rek daal mooy barrage barrage bi nga xamante ni dañ ko daal di ibbi ndax ndox mi daal di wala ngaan dugg fépp ci askan wi ci fàttali nag moom sax mi nga xamante ni moom moo di njiitu réew mi ñu ngi xamal ne que eh, xam na ne que Sénégal dina génnee ab koppar ngir daal di assister ña nga xamante ni ñoom ñoo loru ci mbënd moomee ne gannaaw bàkk itam foofee neen ci diwaanu Matam diggante Podor ak gër yi ak gox yi nga xamante ni ñoom ñoo ko daal di wër foofu itam daal ñoo ngi ni xamante ni que yu bëree bëri bu moo fa nar a ndax foofu nag itam saal gis nañu ay famille yu bëri bëri yu nga xam te ne dañoo daal di génn seen ay kër daal di dem xooli fu ñu dëkk li ko war a nag moom moo di ndox mi moom moo ko daal di nangu gis nga tamit ay nit yu bëree bëri yu nga xam te ni daan nañ ciy gaañu gannaaw nag ab kër gu nga xamante ni dafa daal di màbb foofee ne te kedungal réewo loolee lañ fa daal di nemmeeku ba tey saa itam ca Medina Njaaj ba yooyu yëpp daal nekk ay gox yu nga xam te ne nag jamono bii ña nekk seen xol neexul dara ndax nag ñoom sax nee nañu mënatuñoo saa gis la nga xamante ni moom lekk mu ñu jënd ndax ay gaal ndaw ndaw ñooy ñëw di leen dimbali te loole nag mooy dafa daal di xaw a des lu bëree bëri lu ci mënti am daal jamono bii Sénégal ci gox yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a jege dex bi daal bu ñu moytuwul sax mbir mi dina gën a avancé ba nangu ay këri kër am na saa itam ay village yu nga xamante ni jamono bii kenn mënti faa dëkk kenn mënti faa taxaw ndax lan ndox mi nga xamante ni daf ko daal di occupé waaye nag lu ci mënti am daal ñu bëri jàpp ni daal xel dal na nag nguur gi fii ay fan ñu jëm daal daan jël ay ay matukaay gannaaw sax ab descente bu nga xamante ni moom jëriñ gi nga xamante ni moom lañ dénk wàllum biir réew mi di Jean Baptiste demoon na fa ngir saytu situation boobee ne ñu daal di itam dem ba tey ret foofee ne ki cité ñax bu Kébémer daal di wax itam ci mbir mu doy waar bi nga xamante ni uh, moom moo fa daal di am muy benn dawalkatu sareet nag moom dañ koo daal di fekk rek muy sëy ak benn xar mbir mi nag sax itam mu ngi am fan yi ñu weesu moom nag sax daanaka li feeñal waa gi sax moom moo di daal borom gétt gi moom moo toog ba xaajagu di ret dégg xar mi di dal di yuuxu yuuxu yu nga xamante ni amul bopp amul génn di leen tànkal moom nag a tortam ret la daal daal dañoo fekk daal benn sareet buy wuyoo Esfal commencé daal e euh, mi nag sax moom moo ko daal di feeñal moom waa ji nag ba daal di ni ba ni ko borom euh, gétt gi daal di jàppe yóbbu ko fa nga xamante ni fa la mbaxana doone benn waaye itam sax daal di bind ab plainte wara nag moom waa ji daal dinañ koy jàpp biñ ko laajee nag mbir mi dafa ne daal moom nekkul mbir mu nga xamante ni daf ko daal di tey waaye taxul ni que nag ña nga xamante ni daal ñoom ñoo di waa commissariat daal di koy defeere foofee ne ci tribunal bu grande instance bu Louga lu ci daal ñu ngi koy toppee li nga xamante ni moom moo di zoophilie et attentat à la pudeur moom mii di Esfal nag daal dinañ koy placé sous mandat de dépôt gannaaw ba nga xamante ni nag loolu la procureur bi daal di santaane lu ci mënti am daal moom jamono bi mu ngi xaaral ni foofee ne ca kaso ngir xool ana fan la wànnent di mujj ak gëtëm ñu adu itam ci mbir mi nga xamante ni moom moo xewoon foofee ne ci diwaanu Ngor muy xale bu jigéen boobee nga xamante ni dañ koo daal di fekk ci ab appartement meublé mu daal di génn àdduna moom sax ñu ngi ñuy xamal ni que waa gendarme euh, waa gendarmerie bu brigade de recherche bu fàndi bu fédère bu ñoom ñoo daal di maanaam def enquête boobee ba sax jamono bi jàpp nañ ci ñett nit ñu nga xamante ni daal ñoom ñett ñëpp daal daanaka ay suspect la ñaar ñi nag nekk ay xaritam kenn kenn ki itam di ab ñetteel nit bu nga xam te ne daal dafa am lu mu sekkoon ak ku ki ñoom ñaari xale jigéen yooyu saa itam am na fu leen dàkkanteele keneen ki itam tamit nag am na lu mu bëggoon ci ki nga xamante ni moom moo daal di faatu waaye li ci am daal jamono bi ñoom ñetti ñëpp nag ñoo ngi ci loxo yoon placé nañ leen en garde à vue di leen déglu waaye li ci mënti am daal ñoom ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ñaari xarit jigéen di itam jàpp nañ ni que ñoom ñoom mujjee woon nekk ak waa ji waral yoon daal leen di jamono bi sax ñoom ñëpp ñu ñu ngi leen déglu waaye itam moom si nekkoon ko nga xamante ni nee nañu mu jige woon ci diwaanu Thiès kaay te dëkk boobee ñu naan Pout ngir ñëw daan si dooleem ci kenn Dakaaru Njaay ni mbiri demee nag li ko feeñal saa itam moom moo di ab caméra de nga xamante ni moom moo daal di capturé waa jàpp ni moom moo ko daal di faat du ci mënti am daal jamono bi ñoom ñëpp nag ñu ngi ci ay loxo yoon ngir amal ay enquêtes yu nga xamante ni dinañ xam dëgg-dëgg lan moo daal di waral mbir mi ci fàttali nag moom soxna si Aïssa itam nee nañu li ko taxoon jóge Kees moom moo di waajuram bu jigéen bu génnoon àdduna mu bàyyi itam benn doomam bu góor bu nga xamante ni dafa waroon liggéey ngir daal di koy faj donte sax moom soxna si ñu ngi nii xamal ne itam daal dafa amoon feebar bu ñu naan jabet waaye nag jamono bii mi ngi fi nga xamante ni daal moom moo di ca morgu ngir ñuy amal autopsie ci néewam xool dëgg-dëgg ana lan moo ko daal di fàtt moom Bougane Gueye Dany di njiital mouvement gëm sa bopp itam daal ne génn daal di contrecarrer kàddu yi nga xamante ni Ousmane Sonko yëkkati woon na ko barki démb ñeel nag situation bi nga xamante ni daal moom lañu war a dem ci élection législative moom Bougane Gueye Dany daal jàpp ni jamono bi Sénégal fi mu toll daal benn sénégalais warul génnee xaalis ngir financer ay campagne li mu jàpp rek moom moo di am na mbir yu nga xamante ni moom moo gën urgent moom Bougane Gueye Dany nag yëkkati na ay kàddu yi nga xamante ni daal maanaam laaj sénégalais yi xaalis ci itam ñoom ñoo wax ni que réew mi dafa nekk en crise waaye daal lu ci mën ci am moom buggaan taxaw téem nag ngir jàkkaarloo Ousmane Sonko ba daal di weddi ay kàddoom waaye nag itam daal dinay d'accord ci benn côté moom moo di haute cour de justice bi nga xamante ni dañ koo bëgg daal di eh, tëral li mu jàpp daal moom moo di ña nga xamante ni ñoom ñooy eh, kilifa yi ñu jàpp ne dañoo am ay njuuj njaaj yi nga xamante ni def nañ ko ñooñee ne nañ leen njëkkee ci la nga xamante ni moom moo di haute cour de justice bi ga donte nag gis nañu jamono bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Pastef seen njiit eh, mi di Ousmane Sonko nee na nañu joxe ngir daal di waajal campagne bi ca boobee jamono nag moom njiital mouvement Thiès d'abord di wuyoo ki turu Habib Vitin moom nag bi yoon laajul kenn dërëm ndax nag moom moo génnee ab kopparam di ko jox askan wi ndax nag moom gis nañ ni bi école ko doon jébbal ay ndongo fan yii ren ñu wees itam foofee ne ci INEFJA di bi nga xamante ni ay silmaxa di jànge daal la daal di mobiliser moyens yu bëree bëri ci ay fournitures scolaires dimbali leen ne que jamono bi askan wi ñoom ñoo leen war a jàppale waaye nag kenn warul leen laaj benn dërëm ngir dugal ci seen ay poste wala finance mbir politique moom nag jamono bi ay vitin li mu jàpp daal moom moo di képp ku nga xamante ni daal kilifa nga ci politique yaa war a fexe xool askan wi naka lay doxee képp ku nga xamante ni daal mën nga koo dimbali daal leen di jox ci la nga xamante ni moom moom la yàlla dénk ci xayma daal gën ngaa gàtt gàtt gàtt ay junni junni élèves yu nga xamante ni daal ñoo ngi ci biir Cees kaay moom jiital mouvement Cees d'abord boobee di Habib Vitin na leen dimbali ci ay inscription ak itam jox leen li nga xamante ni moom moo di ay fourniture scolaire Euh, mbokk yi itam ñu daal di wax rek ci la nga xamante ni moom moo di immigration irrégulière bi nga xamante ni euh, daanaka nemmeeku nañ ko loolu nag sax moo waral euh, benn enveloppe bu toll ci fanweeri million d'euros bi nga xamante ne daal ci xayma fukk ak juróom-ñeent milliards daal loole daan nañ koy génnee loolu nag commissaire européen aux partenaires internationaux daal moom moo ko daal di euh, xamle mu ngi fii sax ci diwaan Sénégal ñëwoon fi ab tukki nemmeeku loolu nag sax li ko waral rek moom moo di fexe daal ba génnee yenn ci ay ndaw yu nga xamante ni ñu ngi daal di maanaam euh, dem ci gaal gi lu ci mën tam daal loolee itam daal na nekk ab koppar gu nga xamante ni daal daal daañu ko séddalee ay ndaw yu nga xamante ni leen rek moo nekkoon seen bébét fexe daal ba daal di ŋàbb gaal ngir dem euh, foofee ne ci diwaanu Espagne lu ci mënti am daal fan yi itam gis nañu ay gaal yu nga xamante ni ndànk-ndànk ñu ngi àgg euh, foofee ne ci diwaanu Espagne mbokk yi moom noonu am mbégte kontaante lii moo nekk la nga xamante ni moo gënoon fës xibaar yi waaye nag mbokk yi duñu yem foofu ak yéen niñ koy defee saa su nekk rek dañuy daal di ñëw ak yéen ca mbir mu nga xamante ni daal moom moo xew euh, foofee ne ni diggante nag eh, benn professeur de mathématique ak benn xale bu jigéen bu nga xamante ni daal moom la doon jàngal mbir mi nag sax daanaka ci kanamu yoon la daal di mujj mbokk yi eh, professeur de mathématique bi moom daanaka nee nañu dafa nekk nga xamante ni daal ku xarañ ci liggéeyam la ku xarañ lool ci liggéeyam la maanaam mën loolu matière am moom nag eh, daanaka pertinence bi nga xam te ne am na ko ak ak pédagogie bi moo waral daal fi mu nekkoon di jàngale benn parent d'élève daal élève doom ji ne ko suñu école kat am na benn professeur bu mën jàngale bu nga xamante ni daal euh, dama bëgg rek dama bëgg rek mu ñëw di ma jàngal si xam nga itam xale bu jigéen bu toll ci fukki at ak juróom-ñett daanaka kooku 18 ans am doon def terminal ren ji kooku moo daal di daal fexe ba imposer yaayam boole ko ak professeur boobu mu ñëw ci kër ga ngir di ko jàngale au bi nag lépp mu ngi doon jaar yoon wax dëgg fa yàlla lépp mu ngi doon jaar yoon ndax moom xale bu jigéen bi professeur bi bu ñëwee ci saal ba lay toog jàngal ko dem ñibbi amul woon nag moom benn xaar yàlla mais dañu naan yenn saay mbir dina toll foo xam te yow doo xam lan lay nduru ndax moom xale bu jigéen bi nee nañ dafa jékki-jékki rek commencé. maanaam soppeeku di sol yére nga xamante ni daal yàlla xam doy na xam nga dañu naan góor moom góor dong la waaye nag yenn saa yi dañu naan jigéen du rëbb sooy loolu nag ça dépend ci góor ñi waaye ki seen pexe ñun ñëpp xam nañ ni ka yàlla moo ne inna kaydakunna azimun ñoom ñëpp seen pexe dafa daal di rëy kon jigéen bala ngaa xam ne rek peñ pexe moo rëy mu mu jug dëgmal la xam nga ndeysaan benn boroom xam-xam dafa toogoon ret gis situation àddina ni mu doy waare mu ne man daal jigéen ñi il faut que ma mun leen moytu te pour nag ma moytu leen il faut ma jàngi leen waa gi daal di dem jàngi jàngi ay ati at ba commencé ba màgget ñibbisiwaat ci dëkk bi premier jour am mu ñëw ne jigéen ñi ah yéen laa jàngi woonaa ah, te mokkal naa leen bind naa ci yéen livre boo nga xamante ni ku ko lire dina leen moytu mu ne leen nag léegi bu ngoonee yéen ñëpp di ngeen di ñëw ngeen dajeek man ci penc mi ci wetu teen bi ngeen farankulaay ma wax leen yénn ki seen ay jikko yéen jigéen ñi ndeke moom xam naa ni am na ku mel ni Ami Thiam sama benn cousine ndeysaan di ko nuyu bu baax a baax di yëngu ci wàllum eh, immobilier di kuy bàyyi xel émission bi moom waa ji daal mu jox jigéen dig daje 16h 15h30 rek Ami ñëw sama cousine boobu ndax dama ko yeb ne waa ji ma xool waa ji daal di koy jox téere bi maanaam livre bu mu bind si xool xool xool xool tëmbal téere bi ci teen ne ko da ngaa fàttewoon pexe bii nii waa ji xam jaaree fa nekk daanaka comment jaaree fa dee kon pour ret wan ne que jigéen moom kenn mënu koo comprendre te pexem dafa garaaw moom moom professeur bi daal à travers ni xale bu jigéen bi doon solo commencé koo xam nga rek euh, commencé ko charmer ba yàlla dogal nag am na lu dox seen diggante ñoom ñaar am na lu dox. ñoom ñaar ki seen diggante xam nga yenn saa yi mënut a ñàkk dañuy naan xar moom fi ñu ko yore lay lekk ba daal am genre ngoro bi nga xamante ni daal moom moo daal di dox seen diggante loolu nag moo waral waa ji am fu mu jaare xale bu jigéen ba xale bu jigéen ndeke daal dina koy wax yaayam porte plainte waa ji xam nga yenn saa ñoom jigéen ñi pour wane leen ko matuñu bu ñuy def dara duñ ci bàyyi xel mais buñ demee nag ba mbir mi commencé doy waar loolu waa gi daal dafa xëy rek ñu ñu ñu ko ab ne ko dañ laa soxla bismillah kaay xale bu jëm bi itam moom daal dina génne eh, certificat médical am wane ne daal moom dañoo daal di àgg ci kawam léegi nag problème bi moo di xale bu jëm bi même bu dee moo doon jéem a rëbb bi mais li mais li ñu wax dafa ni professeur daf ko daal di sàkku carrément daf ko daal di violer toog ay fan saa mënta dox xam nga ndeysaan yooyu moom bu certificat médical amee rek caaxaan faaxee jeex na mënoo rëcc moom waa ji daal di janoog ak enquêteurs yi daal di ñëwaat point par point mu ne man dama doon jàngal xale bu jigéen bi moom ci ba moom moo sàkku pour ma defal ko cours particulier te moom au début daf ma daan suma ma ñëwee seen kër ki salle bi la ma daan teg fexe ma imposé ma jàngal ko mais un certain moment bi yaayam commencé dem ak dikk nekk ci commerce moom xale bu jigéen daal ci laa commencé seetlu ci moom ay coppite ndax dafa daan dem ba naan ma salle bi daal fii si um, maanaam dama sans gêne nii est-ce que duñ dem sama néeg kon foofu am naa fauteuil yeeg yooyu nga jàngal foofu ci la sama xel di gën a dal ndekay waa ji fa lañ ko tendre pied daal ba xale bu jigéen xam nga daal di koy chercher am ko am lu dox diggante mais xale bu jigéen moom buñ ko laajee la la waaj dafa ne waaj daal jël na sax làmmiñam dugal ci sama awra waa gi tamit buñ ko laajee yow ba xam yaa ko def dafa ne a ah, man daal moom moo ñëw fóon ma ñu commencé euh, flirter ngeen jege ma ci kàddu gi ba ni ba am daal di am léegi nag problème bi nag moo di mbir mi naqari naa euh, jugé waaye nag comme que nag waa ji moom fexe na ba daal di avoué ni am na lu nga xamante ni dox na digganteem ak soxna si ci la caaf daal di xamee moom tamit nee na xale bu jigéen bi magum jëmm la du du ndaw te xale bu jigéen nag lépp lu def rek moo ko def la ndax nee na saa yenn saa xale bu jigéen bi def ay ay coup montage ne ko suba bul ñëw maanaam moom daal nee na sax gëñ na fa daje ak waajuru xale bu jigéen bi léegi nag problème moo di waa ji moom mu ngi ci ay loxo yoon ndax moom daanaka instant bi euh, procureur daal sàkku na sax ñu teg ko ñaari atukaso kaso waaw pour viol mais moom daal li mu jàpp moom moo di xale bi daal moom moo ko daal di provoqué mu tëdd ak moom jeex na ëmb nag amu ci waaye xale bu jéem daal itam xam naa peut-être rëccu moo ci am moo tax mu daal di bëgg a plainte waa ji wala itam peut-être dafa am lu nga xamante ni daal dox na ci seen diggante ñoom ñaa loo xamante ni kenn mënu koo wax waaye jàpp leen daal mbiru viol la bu nga xamante ni benn professeur de mathématique la laal mi ngi nekk ca diwaanu Diamniadio léegi nag lan moo ci seen xalaat cours particulier à à à domicile bëri na ci ay jàngalekat yu nga xamante ni yenn dañuy ñëw daal di leen di maanaam proposer wàllum cours particulier te amaan sax yenn saa yu bëri fii lay mujj léegi nag lan moo war a nekk relation entre élève ak professeur. élève ak professeur na na na lañ war a comporté woo ndax war nañ dem ba am benn affinité bi ak itam kenn condition la professeur war a jugee këram ndem jàngal élève ndax gis ngeen tey jii professeur yi moom instant bi caabi féete na ko ginnaaw te ak lu mënte itam deram fii lay jaaree yàqu ndax dina amati sax ab crédibilité pour jàngal xale ndax xam nga tey jii bu ay parents di lay xamee ne kat yow mi mu mës nga am problème viol ñooñu dootuñ ñeme jox la seen doom pour nga pour nga jàngal leen waaye daal jàpp leen ni que mbir mi nii la demee moom waa ji mi ngi mi instant bii nii ca kaso di xaar le 23 bii di ñëw ngir ñu daal di jël dogal xool dëgg-dëgg ana fan la wante di mujjee di mujjee a itam waaye daal di leen bàyyiloo xeel yéen ñi nga xamante ni yéenay jàngale ji cours de particulier ngir moytu bu baax a baax ndax yéen saay lu nekk mën na am ci ay maanaam jiiñ yàqal leen seen àddina alal ko du ngeen def dara ndax fii kilifa yu bëree bëri tuumal nañ leen wàllum viol te te defuñu ko te di te di ñaan yàlla yàlla kenn ñun seen xalaat itam ci point bi nga xam te ne ànd nañ ko tey mbokk yi lool di leen jox di dégg incha allahu taala suba ak jàmm jërë ngeen jëf ci ànd bi